ñoom avec toute l'instrumentalisation de la ji bu ñu jël teg ko ci le président Ousmane Sonko malgré tout ça le ñun notre euh, le, le président Ousmane Sonko de debout il est mis en prison mais ñun dañu gis ni man dam man bokk naa sax ñu jàpp ni lii lu gën lu gën ci moom la est-ce que vous comprenez ça va aussi de sa propre de sa propre formation saa ça boo sa dafa bokk si la nga xam ne da koy aguerrir da koy gën a dëgëral mm-hmm. parce que tey say man à na avis ah man jàpp naa ne peut-être Ousmane Sonko su traversé woon li mu def te duggul prison tous ces seconds dugg prison peut-être dina am lu des si moom si si si parcours am donc euh, pour vous raconter une anecdote pour vous dire que moom lii aussi il le il le vie avec dignité et il le vit avec courage et gëm yàlla aussi lépp bu ñu ko placé su maanaara defoo may waxtaan ak moom donc il a sorti un ouvrage arrêté Senghor mu génneew mu ne ma gis nga Henri Cassin raconte les cinq grands tomes qui ont marqué l'histoire moderne, l'histoire contemporaine de l'humanité. Toutes ces cinq, six d'ailleurs, six, à part Margaret Thatcher, ils ont fait la prison presque. D'accord. Est-ce que vous comprenez mhm. Pour vous dire que mon, nekkul si euh, comme li may wax le président Ousmane Sonko ku koy xool à la dimension de nos hommes politiques à la limite même ordinaire doo ko si gis. d'accord Ousmane Sonko non non je le dis ah je le dis et je le mettais c'est des hommes politiques en réalité ordinaires. Ousmane Sonko inscrit moom moom fu mu inscrire il la inscrit son action à l'image de Nelson Mandela. à l'image des grands hommes qui ont marqué l'humanité moo tax ñi taxaw yaakaar ni ñun ñun ñun on n'est pas on n'est pas dans la politique classique. d' accord gis nga le Pastef la dafay dafay doon un exemple pour terminer. très mais foofu laay terminer gis nga le Pastef yàgg naa ko wax te du fii laa koy waxee yàgg naa wax dans différents plateaux nee naa la Pastef c' est un parti révolutionnaire ñun on est venu pour révolutionner la la la vie politique sénégalaise. d' accord pour apporter d' pratiques. parce que dañoo jàpp ni xam nga lu tax ñuy def loolu parce que dañoo jàpp ni ces pratiques politiques ñu ngi hérité par exemple de l'époque coloniale ou bien de l'administration coloniale tant que Sénégal ngi continuer di doxee nii du ñu jëm fenn. merci beaucoup merci beaucoup maître dans les vingt cinq pays les plus pauvres du monde.